jërëjëfaat sëriñ Béthio sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér sëriñ Béthio sunu yaakaari tey ak ëllëg yàlla na fi yàgg lool te wér ah cun ñi ngi sant bu baax a baax di bég lool yàlla nañ ko yàgg teewe te nga jiite ko ci barkeb sëriñ Béthio man nag li ma yëg mooy ni ko rek universel sëñ Xaadim Ngom tàmbale ni sëriñ Saliou Mbacke sagu na sëriñ Touba sagu na ndax kat xeetu jaamu yàlla yépp ak cant gi féete kaw te bu ñu xoolee cant gi féete kaw ci yoonu murit muy màggal gi tur wi màggal màggal gi sëriñ Béthio bi nga njëkkee lewatal saw nag def say dom muy ay fruit yu saf suukar luwe sa car fiat dougal sa njabot fekk serigne Saliou Mbacke got ba nga yexé ba mu la lajé lu waral li nga juk ci naaju tang wi ak sa njabot ba ci parental yi nga ni ko Mbacke xana sant ci la kanam nga belli mune la kat bis ki tey yàlla na yonti begg na serigne Touba begg kon bu magalam gi Jote, nga ciy def ni nga ciy def man kuma tegal kamil ma wat ni sëriñ Tuubaa bëgg ndax ci tantu bako jaar serigne Saliou Mbacke wax la ngay def li nga xamni mom neena ku ci raw raw motax tax bu ñuy wax ngay jëf ñun nak sant nañu lool ciun ba nga ñu ci boole ndax kat ah man de ci yow la déggé ginar bu ci gëlem hmm. man lima xamone kat moy moy yore sama ñaar fuk bala bobu sax dama daan wut kuma yobale buñ ma indé bu ma amee sama ñaar fukk sama juroom dugg ci xabru yi top di sanni wéccit di ñaan dafa ni loloy magal waye bama and ak yow la xam ginaar ba ci yagul kat passion yaay woon fi ci boru jumaa kat buñu xamé ginar ginaar ba ci dund ko di jëf yow mi yaa magal gi yow kat motax li ah waye nañu sentu li la sëriñ Saliou Mbacke ne sey mbir ak mbiru serigne Touba dal lëkkaloo tank mbiru serigne Touba ngi dem sey mbir ngi dem serigne beccio ken mënu la tey barke serigne Saliou Mbacke mom kanam rek la jëm motax kat ñi ngi sant bëgg ñu ci bolé ndax kat mënon nañ ne ciatum ngelaw waye serigne beccio ngi fi ñu ne fi ak mom di dund li ñuy dund sant nañu serigne Saliou Mbacke ba ñu boole fi jëm ñu dimbali ya ñu defar fi ku fi taxaw wax nga xamni ki kii defaree ngi ndax ñun kat man boog lama daan def moy dama ñewoon ña dem jamonoon tek Serigne Touba ndax kat naan ko ki ñuy wax ñar ñu adna ak alakhirah ki ne ruu minde fi ming sama sama loxo ki ne jëriñ minde fi moma taxaw wacc ci kaw suuf bu dul woon duma fi duma fi wacc sa mani Serigne Touba raw na waaye ba ak yow la xamni ne yo serigne Touba dem fenn la wax ni duma faa ku and ak yow dana ko xam li serigne Touba ne defar minde fi limuy def ci nit bañu top ko bu ko defon ci garab ñu wërte duñ ko jox te nee julli ñaari rakka moko gëna jafé defar nit wa jamono ji kuy defare ani kuñu defar ani kuñu defar sëriñ Béthio sant nañ la de jërëjëf sëriñ Béthio di ndokkalee soxna ay na sa jëmmi bopp ndax kat ah dëgg rek a neex moom jëf ji da koo jëf ndax junnee nag ci jigéen waaye sëñ Tuubaa kat ah li sëñ Abdou Lahad Mbacke wax waaye dëgg a neex sëriñ Tuubaa ay mbiram féete na kaw sariya ak tasawuf ndax lii kat mësta am jigéen ñu naan jigéen mu def lii mu def ci yoon wi ku mën na def ñu lay ndokkale de tey sant bu baax a baax ndax danga koo jëf ànd koog sa mbooloo ba pare nag dem jëndi ji nag yi nee nga sëriñ bi kat li ko sëriñ Saalu liggéey liggéey sëriñ Touba bi jaral waaye yow ni mu na la yaay man maay yow li la li la liggéeyam bii jaral ah gisuma ko de man de mënuma ko man de lii mënuma ko moom kat bu la ne woon yaay man maay yow hmm. mu demee neneen te mën ta demee neneen ndax sëriñ Saliou mi ne ko yaay man maay yow jàpp ci yow mooy dëgg-dëgg jàpp ci man ku ko def noppal ma àdduna noppal ma àllaaxira di nga def lu ma neex yow it nii rek nga mën a def di sant bu baax a baax di bëgg lool di ñaan mu jëm kanam te kanam la jëm moo li sëriñ bi ne taxaw yow sëriñ Béthio convoqué ñëpp ñi mu doon convoqué ñu ñu xam ci yoonu murid ne leen kii sama sampa danañ dem ba ñëpp ne sëriñ Béthio sëriñ Touba li mu wax bant kat bu ko sampoon nit ak jinne ak malaaka àdduna doon ko jéem a simpi duñ ci mën dara kon nii rek la mën a demee sant nañu de tey ndokkale bu baax soxna Adja Saliou waaye dëgg neex sëñ Béthio yi dëgg dëgg rek kay dëgg kay dëgg sëñ Béthio yi dëgg dëgg rek kay dëgg koy jiiñ ci nii way juram nii mu ànde moom nii nga xam ni kat dëgg gi mujj na leer ba lépp daal di jaar yoon loolu ànd gi mu ànd ak yow la te waxe xam ni yaay njariñ xam ni kat way juram yi lu gën lañ ko bëggal nekk dafa tasee lu gën te xamaguñu ko woon waaye tey xam nañ ni yaa gën lépp ñu ngi santaat bu baax di ñaan Serigne Béthio Diome Serigne Saliou yàq loolu tamit.